laa maa nga nee toog sëriñ xaadim ma nga nee toog Modou dama bëgg nga introduire sëñ xaadim ci njabootu ma sama léegi léegi ñu ñu ñu njëkkante waxtu wi ñu bàyyi ñu bàyyi sëñ xaadim lam sëñ Amir na fi délégation bu mag doomam sëriñ mam ma moo ko jiite ñëw na léegi xam ngeen ni waa kër sëriñ ma Ngoy Lam ñoom ci parrain bis bi lañu léegi sëriñ Xaadim Lam lañu bëgg ñëw jox ko kaddu gi mu yëkkati waaye sërif Ousseynou Soxna moom alxaaji Soxna ñëw na mi ngi nee ne toog Moustapha Thiam nag ne mi ngi fàttali la 23 décembre bis bi muy defal sëriñ Fallu muy géewalu sëriñ Fallu na ko ñëpp bàyyi xel léegi nag ana ana sëñ xaadim sëñ xaadim kebe ñëw na waaye sëñ ahmadou sugu sëñ ahmadou sugu soxna sukkunta soxna sukkunta moom it yónni na cheikh mu ak mohamed bakaye cheikh sidi lamine xam ngeen ni soxna sukkunta way juróom soxna ami fat seen moom cheikh mohamadul moustapha daa wàcc liggéey mu nekk Touba waaye bu dul woon mooy ñëwal boppam ànd ak sëñ ahmadou tasir bis bi soxna Sukunta ñu ngi koy sant te di ko gërëm ci taxawaayam ak délégation bi mu yónnee yëpp soxna Subintu alaaji mam bu xalif général ana sëñ xaadim lam sëñ xaadim on vous donne la waaye sëñ xaadim Kebe jànkatu xasaayit moom it ñëw na mu ngi toog waa kër Serigne Mor Janjari ñoom it ñëw nañu waa kër sëñ Aline Kan ñoom it ñëw nañu léegi nag damay jël kaddu gi jox ko sëñ xaadim bu sabe la billahi min asheytaani rajim wa inni a'uudu bika wa rajim rabbi a'uudu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uudu bika rabbi an yahduruni rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barke Sëriñ Jéeri asalaamaaleykum mbokki taalibe yi asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñoo ngi yëkkati kàddu cant ak mbégte ndax alxuraan moo wax di la in sakkartum la azidannakum waaye nag walla in ina azaba la shadid yàlla moo ne bu ngeen ma santee rek ma dolli moo tax tey waa kër Cheikh Massamba Ngoy Lam di seexub sëriñ jéeri waa daal ñoo am cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax lii nga xam ni tey Cheikh Ahmadou Sougou mu sëriñ Mama Sougou mu Cheikh Ahmadou Tafris Sougou def lii dafa rëy lool ci ñi nga xam ni ñooy waa kër Cheikh Massamba Ngoy Lam tey bi su mbégte la ci sunu maam ji nga xam ni dañ koo boole ci ñu tudde bis bi ndax waa doon ndax waa daan la nelawee ñu denc ko fa sëriñ jéeri jële ko gàdd yel indi ko waa daan mu nelew fa mu denc ko fa ba noppi nag seexal ko ñun amuñu lu waa daan kon moo tax ñu ànd ak délégation bu am solo di nuyu nag waa kër sëriñ Mayib Sugu ndax lii nu wax nii sëriñ jéer yi dafa jëloon rakkam muy sëriñ Mayib jox ko Sidi malik loolu mooy dundal ak bokk tey tarixa yépp a ngi lii mooy lislaam waa kër Seex Masamba nag ñi ngi sant ki nga xam ni moo fi xalifa sëriñ yi muy sëriñ Matar Sugu di sama sëriñ yàlla na fi yàgg tànd ànd ak wér njabootam a ngi nii toog sëriñ daam ak sëñ anbal ñu ngi nuyu njabootu sëriñ daam joor gépp Cheikh Amadou Sougou tey ànd nanu ak délégation boo xam ni ñi ngi ciy jiital nag koo xam ni tey moo fi nekkal Cheikh Massamba Ngoy Lam muy Alaaji Kumba Seen yàlla na fi yàgg te ak wér alaaji Gumba Seen képp ku ñaan fanam gudd yàlla boo ko tëraloo ragal ci barke Cheikh Jéeri waa daal koroog ba nu demee këram la mu génne lu bari la ni dama bëgg a yóbbaale képp koo xam ne sëtub sëñ Jéeri nga ak sëtub Cheikh Massamba Ngoy teg ko ci sama loxo maag jëwrin laa ma Cheikh Parcelle nga nele di jàmbaari fakk tëdd ak sëñ ale ni bu ngeen demee na ngeen ma santal sëriñ bi gërëmal ma ko ndax kat ñun ñi nga xam ne ñooy sëtu Cheikh Massamba Ngoy amuñu payam kon Cheikh Amadou waxtu wi la ñuy dàqanteel te guddi na te yaa baax mënul weesu yaa baax sëriñ Modou Mboup ñu ngi lay sant di la ñaanal gudd fan ngaan wér kon nag délégation bi moo koy lim fi fanaan waaye nag waa kër Cheikh sàmba ñoo yëkkati enveloppe bii di ko booleeg nag ak xeeb teg ko ci loxo ki nga xam ni mooy sëriñ Ahmadou si Ahmadou waa kër seex ma Massamba ñoo yëkkati addiye ji di ko booleeg xeeb teg ko sa loxo di ñaan bu déwénee nga ñaanal ñu bu déwénee ñu def lu kawe suñu jot ci barkeb sëriñ jéeri lii daal moo doon kàddu yi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ma sali ala saydina muhammad jërë ngeen jëf ngeen baal léegi léegi si Cheikh Mbacké waaw dafa am jëmm joo xam nii waaw muy imam Ahmed Touré bu Maris faaw ñu insister ci moom imam Ahmed Touré nii toog nii mu toogee ci ginnaaw jëmm la joo xam ni soloom bari na lool mu baax lool mu xàll yoonu diine lool kër yëpp mu ni leen ñëw leen nee na diine ji yàlla nee na ñu booloo bennoo ma sàmbalan tudde bis bi de waaye naar yi defar nañ ko de alaaji seex gumbal yal na yàlla guddal saw sax may la wér maa ngi gis ibnu xaasim léegi ci taabal dama wax ni ay na sugu tabaar kàlla bàyyiwunu benn naam papa gumbale nga ne toog bu fi xajoon ñëpp la tudd ndax nag li ma ci xam bari na de tayit nag sëriñ Amadou sama baay danaa wax ni bala ngaa xam foo toll doomu aadama yi da ngay natt sa bopp sa yaaya nga ne toog ajal sa ami jaxum ak faalo ak sa ndey yee di xadi baara ak tabaar la doom yi mëtu jee toog muy soxna astutal sa nijaay seex tabarkalla yar la nee na mu ngi koy ñaanal muy seex jaxum doomam ji nga xam ni tabarkalla macha allah barki démb la fi jóge ñu ñu ñu ñu di ko ci sargal loolu munu la ñàkk musaa yal na yàlla yokk leer man daal ñaanal naa dar man ko yëpp ñaanal naa dar ña dar sàkk ji yëpp sooy bi maa ngi leen di gis yaag Basiiru dama ni nun alaaji gumba nu am ndax nag moo fi sëriñ jéeri waa daan ci ñun moo fi seex Masamba Ngoy la ci ñun waa kalam a nga nii toog ku maam Masamba Ngoy jaboote nag ñëw na ki ne gis naa la de Moodu kontaan naa ñii nga xam ni mooy waa kër Mayib nag tabaarkalla maasàllaa lu dagg morom ma ngay fekk sant na nu ñëpp di sant Lamine Sougou nag délégation waa kër maam Samba Ngoy ñu ngi nii toog waa lii bu ma ko waxul woon nag bu ma ñibbee damay mer. suñu nga xamante ni mu ngi ci saal bi di ci teg mboolem ku nekk ci saal bi rek di wax ci diwaan tuum diwaan lamb Serigne Diri Wane yëpp di wax ni waa diwaan bi ñu ngi beral ak cant parrain yi nga xamante ni ñoom lañ tuddee woon bis bi muy ku ci mel ni waa kër. sëñ Mayib Sougou gis fort délégation bi mu fi indi waa kër sëñ Massamba Ngoy Lam ñoom it leen di sant bu baax a baax a baax a baax waaye di beral ak ñaan ñi nga xamante ni ñoom lañ àndaloon liggéey bi ku ci mel ni Mamadou Lamine jàlloo doonoon jëwriñ ju mag ci diwaanu Lamp Serigne Jéeri Waaraan suñ borom dogal ren jii mu jiituñu ñu koy ñaanal lépp luñ fi jàng ci kaamil rek suñ borom dawal ko ko ak yërmande te tollee la ko yool wa di sant bu baax a baax a baax it ki nga xamante nii moo waral li lépp tey muy sëriñ Ahmadou Tassirou Sougou moom sëriñ Mamba Sougou moom sëriñ Ahmadou Tassirou Sougou moom sëriñ Jéeri Waadaan di wax ni waa Diwane bi sëñ bi ñu ngi lay beral ak cant ko mag a mag a mag a mag di sant yàlla bu baax ci bi ñu woowee lu dul liggéeyal sëriñ Jéeri ndax ci liggéeyal sëriñ Jéeri képp nga noo sa woo mosoo noo woo ci leneen lu dul liggéeyal sëriñ Jéeri ba tax na maket bi ñu fi dawal sànq xëy na ñu bari gis nañ film bi mu nekk film boo xamante ni daara moderne la nu taxawal ko fa seeni ko liggéey ca waadaan mu mel ni nag sëñ bi daa dégg waxi sëñ Muntaxaa yi ndax bu sëñ Muntaxaa di xalif général des mourides sampee lu doy ni université woote ko nit ñi di liggéey jëm ci tam ni bu laa suuf sëriñ bi moom jugee ci xam ni kenn mënta dem ci université ak foo jaar mu ni fas yéene naa taxawal ab daara moderne ca waadaan nu xayma ko ci nangam di million kon kooku dégg na wala sëñ Muntaxa bi ba tax na ñu ngi ciy demandé ñëpp ñëpp bon bonne volonté yëpp ñu ngi leen ciy séntu bu baax a baax a baax di ci demandé état di ko ci tàllal loxo bu baax waaye nag du ñuy daaneel suñuy kàddu te sant ñu ki nga xamante ni moo waral lii muy El Hadji Sine Niang di nga jàmbaar nga xamante ni ku ko xam ku ne. xam ko ci wanagu Serigne Ahmad Tasrif Sougou xam ko ci wanagu Serigne Jéeri Waaraan Sougou nga xamante ni ab taawam mi ngi fi di Baye Mor Ñang ak i raqam yëpp kon donc duñ daaneel te tudd nu ay kàddoom di sant ñi nga xamante ni mooy famille feu El Hadj Ibrahima Ndiaye Jazaaka bi nga xamante ni moom it doonoon wóllëre ci sëñ bi nga xamante ni koro gi ko sëñ bi di mujjee gis doo koo waxoon ni ko maa ngi fasanteegee kóllëre sëñ bi woo ma xamal ma ni ma fasanteeg man kóllëre googu moo waral dinaa ko ñaanal ci bis bi ndax bis boobu la suñu mujjee gisante moom it njabootam gépp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf diwaan bi sant na mbooloo mépp gërëm na mbooloo mépp buñ limee rek juum jërë ngeen jëf njabootu gi Alaaji Ibrahima Ndiaye Sëriñ Ahmad nee na yore ne cant goo xam ne am na tàmbali yàlla na yàlla fay ak bokk waaye sëñ Ahmadou sa mbokk sëriñ Mama moom sëriñ Ahmed moom sëñ Amadou Tasrif ma nga ne ànd ak délégation bu rëy booy juróom yawal Serigne Khadim Kébé nag moom la ñuy jox mu barkeelu ndax dafa jëm fu sori su daanee la kàddoom juróomi minute la lay jàng barkeelu ñu jox nag kàddu gi le grand conférencier Serigne Mor Ngiraan bu Baay Mbay Ngiraan mu Cheikhuna Ahmadul Khadim su paree ñu jox waa alquran ca kanam ci njiital Serigne maam Cheikh moom mu Moutala mi nga xam ne yaayam daa dëkk waral ndax ku jàpp ci bis bi la Serigne Saliou Samba ngi fi oustaz Modou Fall ngi fi incha allahu daañu leen bëggal